فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا قولي قول يحجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القحار من لي بانا كوني لحو حمدي بما ستبانا الحمد لله الذي أحتانا الحلم والحمل والأوطانا له شكري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما أعطانا حمدت حمد الحامدين لنا بالقلب قالق الورى مولانا محى الفرا والذحذح الفتانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا لأوقط بي ورمشاناك وذان لي عند الوداع ما شانا لك وجهنا إحسان أعطيتني الذي محل أدرانا بشرت بالأوطان والأقران لي وأبتى البشر والجيران كفيتني قوما حووا قسرانا لي تصفي الأمر والجنانا تأبني بلا حنى الجنانا زللت من في البحر قد حادانا والبر يا من بالنبي أدانا يشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبي مزدانا نفيت أني قبل قتلا قانا وسيلاقي الوقت ودقانا جذت البحور رضني من معنا بالمنتقى أتبت للزمانا جزاء ربي راض لسلطانا مع الأمين والمنى أحتانا أشكره ولم يزل ديانا شكر الذين شاهدوا حيانا ناديته وبالمنى فجانا وبالنبي أن نستني مذجانا ndamaatu 1 ndaamaatu 2 ak Kër Ñang moo fépp nag am problème waaye ñoo ci gënoon a metti la ndax fii ndox mi na fa ci nekk kër yi moom fees na dell mbedd mi fees del bi bi loolu amee nag ga samedi dimanche ci altine ji Euh, samedi bi moom kenn mënul def dara ndax fépp a fees euh, bassin bi fees même boo wiidee doo doo man a def ci bassin bi parce que bassin bi fees la ñu bàyyi mu bàyyi ñu bàyyi mu dal dimanche ji ak altine ji altine ji nag la bi ma xëyee laa woo sous-préfet bi ma ci waxtaan ak sëñ bi ñu ma woo gone ndaamaatu gone góor yi nekk fii mboolem ndaamaatu ak gone góor mboolem yi nekk Kër ñaŋ mm. dajale leen woo leen su préfecture mm. ñu ñëw bi ñëwee mën na leen yéen a dëkk ci ndox mi ak seen i wàjjur mm. te sëriñ bi yëf yi diis na ko yebal na ma ci Cheikh Bass wax naa ko ko Cheikh Bass nee na naa ñëw yéen ñi laay laaj lan mooy solution yéen ndax dañu bëgguñu tam fële def suñu xalaat ñëw mu wuutee ak li nga xam ne moo nit ku ne la muy dund dana ci am xam-xam di wut ne li li ngeen wax lépp la ñuy def waaye da bu ngeen waxee danañ xam lan la war a def ñoom ñu ne il faut ñu am ay pompe yu ndaw yoo xam ne day dem ci biir kër gi samp ko ci taal ko mu génne ndox mi ci biti ñu war a ko mën a jël yóbbu ci ci ci ci ci ci bassin bi bi loolu amee nag ci fi fi ñu waxtaanee ñu ngi tàmbali dix heures waxtaan wi muy ba ma fa jógee rek ba ba deux heures et demie ba deux heures et ma dem jëndal leen fukki pompe yu ndaw ba fekk ñoom am nañ ñeenti pompe ndax Matar indi na fi ay pompe euh, fa Cheikh Abdou indi na leen may na leen ay pompe Touba euh, ca kanam a ngi ci jàpp ñi acteurs yi nga xam ne ay taalibe leen te nga xam ne am nañ wala te ñëpp kenn ko ci nekk jóg na ak li nga man jox leen hmm. ma jëndal leen fukki pompe hmm. jox leen neuf cent litres essence jëndal leen dàll yu yu mboq yi ñuy sol hmm. maanaam jël fanweeri gone fii ma jël fi fukk jël fee fukk jël fee fukk ñu ànd ak sapeur pompier yi gone yi kër guñ dugg teg fa pomp bi comme nii pompe ba mu jeex ñu génne dem ci geneen kër pompe ba mu jeex ñu génne dem ci geneen kër boobu ba nëgë ne nag ci loolu ñaata kër la lépp lépp xaadim waaw ah, pour kër yi inondé wala waaw yi inondé ndaamaat yi inondé bi ñii ñoo ko doon def dañ ko àndoon ak waa mais am ñaata dafa pareegul léegi léegi ñaata ngeen amoon trois cent trois cent mën na fii ci euh, liggéey fii nii fi nga taxaw nii yëpp ndox la woon ba fële la affaire bi yemoon mais pompe bi nekk fii bundu ma Madické Niang mooy évacuer ndox mi ci bassin bi muy dem léegi ñun bi ñu gisee ne affaire mi ngi dem ñu commencé ci liggéey maire ci la ñu wool ñu ñëw préfecture jumaa ja moom bi woon nañ ko ba mu set mais bi mu tawaatee euh, pompe bi fa la am problème ci la ndox mi duggaat ci biir suba fa la la fa bi war a demaat pour wider foofu jumaa yi siñu saali en même temps buñ nekkee au niveau ndaamaatu yi yan saa yi nit wooñu ci yeneen gox ay janatoog fu ne pour bëgg ña bu ko defee dañuy yab yab yab moto pompe yi yabal ab équipe ñu dem foofu buñ demee foofu doo ko génne foofu kër yi Cheikh Mouhamadoul Mountakha. ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha. mu yabal Cheikh ba Cheikh Mouhamadoul mu yabal Cheikh Mouhamadoul Bassir mii. mu ànd ak meeru dëkk bi. mu ànd ak meeru dëkk bi. ak lenn ci ay kilifa. ak lenn ci ay ngir wane ne. ngir wane ne. Eh, lii lii jëf-jëfu yàlla yàlla la. jëfi yàlla nag. jëfi yàlla nag. ku gëm yàlla. ku gëm xam ne. da jëfi yàlla la. jëfi liñ ci man. liñ ci man. ma nga ca. ma ca. def na ko. def na ko. li ci àdduna man. li ci àdduna man. digal na ko waa àdduna. digal na ko waa àdduna. la ca des. la ca des. Cheikh Mahamadou Bassir mi. mi. koñ koñ bu mu mën a doon. koñ bu mu mën doon. kilifa ya ne. kilifa ya ne. doy nañ sëñ bi ndaw. doy nañ sëriñ bi ndaw. waaye nag yëf dafa am aw yoon. waaye nag yëf yi am aw yoon. mu tànn ko. mu tànn ko. teg ko ci kanam njaboot gi. teg ko ci kanam njaboot gi. mu yor kàddoom. mu yor kàddoom. bu sañoon. mooy ñëwal boppam fii. mooy ñëwal boppam fii. wàcc fii. wàcc fi waaye ku ne xam na ne. waaye ku ne na ne. loolu du waru la mën a nekk. loolu nekk. ndax nii nit ñi dikke nii. neex nii ñi dikkee nii. ak ni ñu koy sakkanale. ak ni ñu koy sakkanale. bàyyi ko ca la ne. bàyyi ko ca la mu ne. mu nekkal nu ca. mu nekkal waaye ngeen yëg ne. waaye ngeen yëg ne. na Seydina Omar doon def. na Seydina Omar doon def. di jóg guddi. di jóg guddi. taman mën naa am sax ma nga ca. te mën naa am sax ma nga ca. wala Abdoulaye xalifa ga. ca xalifa foofu fi la ne. foofu la sëñ Mountakha waaye nag. waaye nag. ndaw lu ne. ndaw lu ne. daraja yi ka ko yónni la yor moo waral mu yabal ko. moo tax mu yabal Cheikh Mamadou Bassir. yabal ma. yabal ko moom sëñ Moustapha Moussa Diop Lakaram. nga xam ne léegi nii. nga xam ne léegi nii. laa mujj a moom. laa mujj a tàggoog moom. mu wax. mu wax. lañ war a wax lañ war wax waaye lañ war a wax dëgg nag waaye lañ war a wax dëgg nag Cheikh Basir mii Cheikh Basir mii moo ko mën a wax moo ko mën a wax waaye na murit yëpp xam ne waaye na murit yëpp xam ne yemut ci mbënnum Touba yamut ci mbëndum Touba mbëndum réew mépp mbëndum réew mépp sëñ bi bu sañoon sëñ bi bu sañoon délégation bu tol nii lay jël délégation bu tol nii lay jël wala mu dëkk ak boppam wala mu dëkkal boppam kenn ku ne nag kenn ku ne nag na doon na doon sëñ bi fa mu ne. lam man mu di ko def. lam man mu ko def. ci nu mu gën a rafete te na mu gën a rafete te xam ne yàlla rek la. te xam ne yàlla rek la. ndax am na ñoo xam ne bi mu tawee ak léegi. ndax am na ñoo xam ne bi mu tawee ak léegi. ñun daan rang lañ. ñun daan rang lañ. tey suul nañ leen. tey suul nañ leen. kon nag. kon nag nañu bàyyi xel sëñ bi. nañ bàyyi xel sëñ bi. te bàyyi dëkk bi xel. te bàyyi dëkk bi xel. te xam ne. te xam ne ñaan gi moo nangu. ñaan gi moo nangu. sëñ bee ko ñaan. sëñ bee به حدانا لذا وبالأمين قد فدانا محمد وحبل القرآن شكري إلهي علي أنا نفى شكوكي قاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحبل الإسكانا وطيب الفؤاد والمكانا له خطابي ومحل عصيانا كما كفاني من حوى طغيانا قد لبت لي يا مالك الأحيانا يا من محى الخطأ والنسيان وجهت لي ما قادني برهانا maada رسول الله قد آوانا منذ الأمير ألحر العدوانا أنت الذي ألنت من آدانا بمدح من كتابه حدانا لرت من ظلمني فلانا ولانتقمت منه يا مولانا مدم كوسي صافيا جذلانا وللأمير قند القزلانا يا الله يا من لم يزل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أحرجني مجانا بمدح من قد ألك سجانا عدم توجيه مكاره القدر من جك شخص لأبدا محل قدر عدم توجيه مكاره القدر من جك شخص لأبدا محل قدر إلي وجه الكريم الباقي ذو الأراضي نصب والطباق ما رمته من حب جاح المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى شهد لي ربي بأني عبد له قديم لنبي ويبدو حدم بنيته ألا يلاح يغذي الذي نازحني الإله دون مكاتب العبادات محا waxuñu yoon lu mu doon ñoom ci lañ fi yebal ay mhm. équipe ah ah. yàgg na sa na sax tabaski bi waaw waaw ci jamono kori bu ñu ko xoolee ñaari weer uh-huh. ci lañ génne ba xam li mu doon uh-huh. li mu doon itam mhm. doon lu mën a saafara tey ndax loolu itam faw nit ñi xam ni mu demee tabarkaal ndax ak dex la goo xam ne waaw xam ngeen ko sax ñoom ñu wax mu ko waaw waaw ak dex la goo xam ne dafa ronu mm. suuf waaw léegi nag eh, day dafa yéeg. day yéegoo day yéeg ba jëm ba mars avance waaw waaw. gëm na baar mel ni sax. dana saar bi waaw. ki suñu maaw ñoom sa agsi na fa. waaw waaw agsi na fa. waaw waaw. xam nga xam nga dex moom xam ngeen ne ndox la. ñoom bi ñu xoolee ci seen xam-xam nag. waaw. liñ ci wax mooy am na Ndakaaru ci ay quartier foofa ba mu fa mu ñu hmm. mujj def ay forage lañ gas suuf. Ah, ok yow mu koy manqué di ko yóbbu ci géej gi. ok léegi nag fii. waaw ah. xam nga ñu ngi door a xam. ndax ak yëpp ñu ngi ko doon jàmbat. Ah. surtout wet gi waaye boo kenn xamu ko toon. waaw ñu ngi door a xam ne nab la ak dex la. dex la waaye du ay toj-toj te woo du mel noonu. waaw léegi nag ñoom ñu ngi xool. Hmm. ci assainissement beeg. yan solution lay def ngir. waaw mu mu mën a mu mën a manqué ndox ba nab bi tuxu. man koo baare bu doon kat loolu moom loolu moom ñu أدغر بي كل المذا يا جمحا وجه الذي يحبني يبيض يوم وجوه السواد تبيض أجر الذي نادعني ولم يتب شقاوة تدوم في أم الكتب لي بان أن المنتقى وسيلتي صلى عليه واحب وسيلتي يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يبتدر باح بقمة النبي الأولياء عليهم رضا مفيد نيليا كرمني الكريم والمكرم بجاه من هو نبي المكرم ردني أن الله والمحتار وحميت كنيتي أستار من لم يوافقني في الذي أحب نفاه ربه إلى ما لا يحب هداني الحدي فلا أضل فمن يوافقني فلا يضل عني محاثي ورضاه الأكبر باق أتاني من خير ذبري إلى سواي كل من أداني بصرف باق ذكر أداني إلى سواي كل من أعداني بصرف باق ذكره حداني محت حروف ذكري ضلالي كما تجود لي بالحلال جاد لي الباقي بما لا ينفد كما اشترى مني مبيئا ينفد كتاب ربي رفيقي أبدا به كفان الله من لم يعبدا سلامة الذي يدود بالحليم وبالنبي بي من المنفعلين شكرت من لي لا يوجئ الكدر في أبد وقاد لي بسر القدر شكرت من لي لا يوجئ الكدر في أبد وقاد لي بسر القدر lillahi qad fawattu amri mu'mina wa musliman wa muhsinan wa mudmina alayya man bi baqa'in wa sahah wa qadani kitabuhu ma sihah li wajhil الكريم ذحذح الكدر إلى سواي وصفاني القدر لم ينحني در ولا أدناس وليس ينح جئة القناس كتاب ذي الجلال والإكرام قالتني وقادني مرامي مدا لي القل غنى عن غيره وكان لي الحب بأعلى خيره ترسي عن الغضب والضلال رضا العليم الباسط الحلال فرحت سيد الورى بقطي وإنه لي رضا ذمتي لم يخفى كون هذه القصيدة حقيقة تعطي الفتى مقصودا هوت منافع السنين والشهور خالصة لوجه مالك الدحور وجاءني الجميل في دنياي ببصر مقلدا صنيايا ناجيت رب العالمين مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل عام وجعل هذه القصيدة صارفة درر نار الدنيا إلى غير ذاتي وإلى غير ما اختاره الله لي وعصمني من رؤية نار الآخرة أبدا بفضله وجوده وكرمه والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa salaamun ala al mursalin walhamdulilahi rabbil alamin kere bi taw bi defee nii muy xin taw bu rëy bi cent quarante millimètres yi bi mu ko tawee fii bassin bi def fees nga xam ne dañ buñ ko doon nat bu waree jël junniy mètre junniy mètre kib jël na juróomi junniy mètre kib junniy mètre bi mu àttan nag da koo jël ñeenti junni yëpp da ko tasaare ci quartier bi lii dugg ci kër yi lépp dugg ci kër yi mbedd yi fees dell bi mu ko bi ko defee bi ma xëyee ñëw leeral la ko de sëñ bi yëg ko ñëw ne ma demal ci sëñ Bas ma dem leeral ko ko ñoom ñi ñëpp yëg nañ ko ñoom ñëpp woo naa leen ne leen sëñ bi yëg na ko yebal nañu ci sëriñ Bas dem nañ ci sëñ Bas leeral na ko sëñ bi ne maa ngi leen di woo ñu waxtaan ñu woo ñenn ci Kër Ñang woo ñenn ci Ndaamaatu woo ñenn ci Ngélému booba ndox mi demagul ngiraaneen bi ñu bi ñu toogee ci sous-préfecture ñu ne leen sëriñ bi yëg na ko looloo yitteem wax na ko sëriñ Bachirou tey jii la ma leen waxoon loolu moo tax sëriñ bi boole sëriñ Bachirou mi ak sëriñ Moustapha Lakaram mi mu ñëw bis boobu sëriñ sëñ Bas woo na ministère de l'intérieur woo na bépp autorité boo xam ne ak bépp action kuy def action muy maire bi muy Touba ca kanam muy kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi di jéem mu yéen ñi nga xam ne am yëg-yëg ci ne yéen ñi nga xam ne amu leen euh, xaalis bu ngeen ci def waaye am ngeen seen am xel ak seen doole te attan ko cee def yéen nit yëg ne ko moo tax ñu woo leen wax ko ko biñ ko ko waxee mu ne dem leen waxtaan dem leen xool nan la ñuy def état bi mi ngi jël na ay décision ñi ngi concerné wu yëgal na ko président de la république président jox ndigalam ay ministère am ñu ngi jokkoo ak Serigne Bass te yaakaar naa ne suba danañ ci xam dara ndax ñoom ñëpp danañ ñëw ministère de l'intérieur dana ñëw ànd ak bépp ministère concerné ñëw ngir régler problème bii bi ko bi ci sëñ bi waxtaanee ak moom ñu ñu ñëw waxtaan ak yéen ngeen li ngeen ne yaakaar nga ne mooy solution bi moom dong lañ mën a gun muy ñu def ko muy wut ay pompe yu ndaw di ci def liñ man état bi indi ay ay oto tasaare ko ci dëkk bi ñuy pompe fi nga xam ne boo pompee amoo foo ko yóbbu sapeur pompier ñu ñu déployé ko jël mbooleem lu moyen yim am maanaam ànd ak yéen ngeen nekk ci ba tey jii sëriñ bi ñëw ànd ak sëñ Moustapha Lakaram sëriñ bi yebal leen ñu ñëw xool ko suba ministère de l'intérieur dana ñëw ànd ak ñetti ministre yaakaar nañu ne li ñu bëgg mooy solution bi ñu def ko nu mu gën a gaawee teg fii pompe yoo xam ne dana jël mbooleem ndox mi ci dëkk bi génn ko yóbbu ko ba Daaru Rahman nga xam ne mooy solution rapide bi nga xam ne bu ñu ko yaakaar nañ ne bu ñu ko defee fii ak màggal kenn ku ci nekk da nga mën a màggale ci sa kër te dootoo am ndox même bu tawaatee taw bu ne mel dana fekk matuwaay yi ñu jël ko ba jafe-jafe bu dootu am. loolu moo tax sëriñ bi ñëw ne mi ngi xool ko massawu leen waaye li ngeen xam ci li ngeen ci xam bay wax bët bu yàlla sakk xam na ci loolu. ndax yor na ñëpp moo leen yilif ñëpp moo leen yilif te yaakaar naa ne ku yilif ñëpp am ay ay am ak njaboot fii kenn ku ci nekk saa boo xëyee da nga ko rendre compte te sëriñ jënd yitte lañ am muy sëñ taxa muy moom mii muy sëñ Moussa muy kilifa yëpp goo xam ne kilifa nga tey responsable ci dëkk bi muy Touba ca kanam muy maire muy kili akson acteurs yi nga xam ne ñi ngi ñi ngi bàyyi xel tey jéem dara kenn ku ci nekk def nga li nga man yaa ngi koy bàyyi xel ndax ab taalibe munul tëdd di nelaw aka lekk ka naan am xelam di dal te mu wóor ko ne ab mbokkam wala ab mbokkam taalibe mi ngi ci ay jafe-jafe yoonu murit solidarité la tudd dañoo ah, solidarité loolu sëñ bi métti na sëriñ bi te defe naa ne Cheikh Bass wax na ko ci déclaration am nee na leen sëñ bi ñett mooy yitte addunaam université bi assainissement bi ak euh, ndoxam taw mi noxom naan mi muy forage yi nga xam ne mooy leen ñetti yi mooy yittee addunaam moom la bëgg mu régler une fois pour toutes te loolu ku ne ku ne kone ne assainissement ku rek li ngay njëkke mooy Kër Ñang loolu xam nañ ko maanaam loolu mi ngi ci na ngeen ko xame noonu Euh, kilifa yu bari ñëw nañ ñu ngi fanaan ci dëkk bi suba état bi dana ñëw bu ñëwee li ñu seen li ñu bëgg mooy solution définitive teg fa loo xam ne ndox mépp dana ko jël génne ko dëkk bi loolu mooy seen yitte loolu tax mel ni état gouvernement bépp daanaka déplacé wu ndax bu ne ministère de l'intérieur dana ñëw ànd ak ñetti ministère concerné loolu la ñuy def si ne am nañ matériel boo xam ne nee nañ mi ngi commencé ñëw dana ñëw suba bu ñëwee loolu mooy doon seen yitte ànd ak Serigne Abdou moom moom Serigne Abibou ci turu Touba ca kanam noo ngi koy sant bu baax moom sëñ Mouhamadul Bachir ndax bi yàlla dogalee Touba ca kanam war a dugal loxoom ci liggéeyu assainissement bi Serigne Mountakha joxe ndigal waa Touba kanam Cheikh Mouhamadul Bachir moo àggale li des ci liggéey bi ci ay waxtaan suñu diggante Touba ca kanam ak ONAS ak Ageroute woote ab ci këram ñu bokk toog waxtaan xàll yoon yi nga xam ne moom la ñu war a seqe liggéey bi. Touba ca kanam liggéey yi nga xam ne jot na ko ci liggéey yëpp ay liggéey la yoo xam ne euh, ONAS a ko waroon a def te ñoom ñu ne buñ leen ci dimbalee ñu jël mu tolloon ci ñaar fukki point ñoom ñu am luñ ca jël le ci def Touba ca kanam jël ko muy liggéey yu am solo yoo xam ne Touba ca kanam defoon ko biñ ko defee ba noppi nag yàlla dogal ren nawet bi bari ndox lool de te lépp dugg ci biir ñaan ko nangu ni ko ñëpp xamee di ñaanal Serigne Mountakha suñu borom gën ko fa yàggal te dëgëral ko bi loolu amee nag mu mel ne ay débordement am na ci bassin bi doone fekk fi ya ama amoon bu njëkk waaye lii ñëpp mat war a bàyyi xel te xam ko mooy bassin bi ñu taxaw di ci waxee nii du bassin boo xam ne da ndox mi dafay war di ñëw di fi dëkk ndox mi dafay war a jaar di jàll. ni ki nga xamee ne ab gare routière bi dafay jaar jël oto jàll loolu nag bu amee ñaar rek kay am mooy lii ñëw ëpp lay dem lii ñëw bu ëppee lu dem faw débordement dina am te loolu mel na ne bettiwut ndax euh, nangami yoon yi nga xam ne yëpp bassin bi débordé na ko ba génn ba dugg ci këriñam yi euh, doon na bàyyi lu xel ne ndox yi lii ñëw mi ngi ëpp. waaye nag jamono bu nekk da ngay jàpp ne capacité bi ñu ngi koy yokk loolu moo tax Touba ca kanam ren bi mu bëggee dugg ci wàllu assainissement bi mu waxtaanee waa ñoom waa ONAS ñu autorisé ko mu connecté ci li Touba ca kanam a jàpp mooy xëy na capacité bi nga xam ne mooy jëlee ndox mi fii ci Kër Ñaŋ di ko yóbbu Daaru Rahman méngoo na ak capacité volume d'eau yi nga xam ne mi ngi ñëw ndax jàpp naa ne calcul yi ci waroon a am am na ba pare lu tax mooy point ne moom la Touba ca kanam liggéey moo xam tokkoor ba la moo xam station Shell la xam euh, quartier Mbay Wadd la yoo xam ne li ci waroon ci étude ONAS defoon nañ ko ba dugal na ci duggoon na ci plan directeur d' assainissement bi loolu moo tax biñ ñu waxee biñ ñu autorisé rek ñun dañ ci daal di connecté teewul nag turu Touba ca kanam tudd nañ ko ci nangam yoon waaye jàpp nañ ne liggéey bu am solo bi nga xam ne bi Sëñ Muntaxa joxe ndigal tubaa ca kanam mu woote ab jaayante taalibe yi ñëw jàpp ci ci diggante bu gàtt ñu dajale luy tolloog un milliard sept cent et quelques millions def ci liggéey bu rëy bi ci menn at jàpp nañ ne lu mel noonu buñ ko tollantiwaatee defaat ko defaat ko ñaari yoon ñetti yoon assainissement day jeex ci day jeex ci ci Touba tamit ci solution daar daar yi nga xam ne monsieur le ko doon wax léegi Touba ca kanam moom amoon na xalaat boobu li ñu jàppoon mooy daar daar fii ak màggal war nañoo jënd moto pompe lu gàtt gàtt benn boo xam ne day am 1000 mètres cube donc nekk pompe électrique waaye duñ ko dugal ci biir bassin bi dañ koy yóbbu fo mel ne yoonu daaru gi ñu taxawoon léegi fu mel ne euh, Ngiraaneen ci quartier yi nga xam ne fa la gën a compliqué samp ko fa tëral ay tuyau flexible yóbbu ko directement daaru Rahman waa ginnaaw bi ñu waxtaanee ak ONAS ci euh, réunion boo xam ne sous-préfet amaloon na ko. ñu waxtaan ak ñoom ñu ne même xalaat bi lañ am waaye ñoom pompe yi ko jëndee fii ci bassin bi lañ koy indi xëy na loolu ba tey solution la bu ñu koy indi ci bassin bi bombu wóor ne bassin bi léegi amatul débordement parce que lii jëlee ndox mi fii di ko yóbbu Daaru Rahman moo ëpp lii ñëw bu boobaa mën nañoo pomper li ci biir dëkk bi yëpp dugal ko ci réseau bi mu ñëw fii jàll Daaru Rahman li mat a moytu rek mooy pomper dugal ci réseau bi te li koy jàllale Daaru Rahman ah, pareegut ba am doole lu ko mooy dana génnaat duggaat ci kër yi bu boobaa liñ doon bañ dana amaat bu fekkente daal assuré nañ ne lii jëlee ndox mi fii di ko yóbbu Daaru Rahman moo ëpp li ñëw fii boo boobaa moom jàmm rekk ay xew ndax fii du bërëb boo xam ne dox mi dafay war di dajee bi ci topp tamit directeur ONAS bi fi ñëwee ci yoon bu njëkk ba waxoon na ne daar daal dinañ yëkkati miir bi nga xam ne moo moo moo wër basin bi boobaa léegi nag xëy na ñu ngi ci peut-être xëy na procédure état moo xaw a yeex waaye booba bu ñu lancé woon marché bi daar daar jàpp naa ne liggéey war naa fekk ma commencé te loolu du lu mën a ñàkk li ci def nag ay procédure long terme la wutiwaat yeneen bassin bàyyiwaat xel assainissement wu dëkk bi ndax actuellement 30 bi nekk ci biir dëkk bi ñu ngi fi def tali xam ne Promoville moo koy def euh, ci taxawaay boo xam ne Cheikh Mahamadul Bachir mi moo ko taxawoon ba loolu sotti waaye loolu war nañoo bàyyi xel bu baax assainissement bi ndax boo seetloo corniche ñaari voies ya fa jógee ñëw ci poste contrôle bi nekk tali bu mag bari na lu sonal ci bii te looloo ko sabab ndax ñaari tali yooyu bañ ko fa defar amul dara assainissement yoonu daaru gi ñu doon wax léegi nga xam ne bu rutoon ak tali ba fa Touba ca kanam def kon yoonu daaru day enclavé wu lu mel ne Seexaw ga tamit bu du a tari ba fa Touba ca kanam def day enclavé wu waaye li mënoon a euh, soulager population bi dëkk ci dëkk ci gox boobu moo doon ñaari voies yooyu am assainissement kon tali 30 bii nga xam ne ñu ngi koy defar te mel ne waa Promoville ak waa ONAS ci jamono doon nañ waxtaan di xool nu ñuy déggoo ba dugal ko ci réseau bi tañ ne attanu ko war nañu leen a teel a wax mu leer nañ ñi ci ne dañoo war a am assainissement bu wóor ba fu ñu romb ndox mu fay taa ñu mën koo xëcc dugal ko ci biir lu ko mooy buñ ko talee rek bàyyi ko noonu jafe-jafe bi day yokk euh, fi nga xam ne nag fi la ñuy fi la ñuy jeexalee kàddu yi mooy Touba ca kanam moom ci ron xalifa général des Mourides ci lay ci ci lay dox ci ndigal lay dox moom sëñ Mountakha képp lay déglu waaye nag bépp côté boo xam ne ma ngi fay servir ma ngi fay dugal loxoom dana ci waxtaan ànd ci ak ñi nga xam ne ñoo yor lool ci wàllu état ñoo ngi sant ko gërëm ak jaajëfal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah mel ne barab yi ñu jaar yëpp nemmiku ko ku fa dem da nga xam ne wax dëgg metti na waaye nag dëkk dëkkandoog sëñ Touba jar na lu ëpp loolu te kenn ku nekk ci yéen dafa gàddaay dëkki maamam gental ko fekk si sëriñ bi jaayante jox boppam sëñ Touba fa yéenee dëkk ak sëñ Touba te dootuñ toxu mukk waaye nag lu nu ci mën a fekk nan xam ne jar na lu ko ëpp lan yi nga xam ne ñoo gàddaayoon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muhaajiriin yi fekki lan saa yi ca Madinatul Munawwara ñooñu muhaajiroon yooyu lañ doon daj ci yoon yi ba ñuy dem ñu di nangu seen i bagage di leen fitna di leen di leen teg ay musib ay ay nattu bañ dem dëkkee ak yonente bi sallallahu alayhi la leen yonente bi sallallahu alayhi wasallam dik ca dëkk ku dëkk sëñ Tuubaa da nga am loolu te mooy bu ëllëgee ñu dekkee ji aljanna loolu nag ku ko mën a am lu la ca mën a fekk wa nga ko mën a muñ kon nattu yi ak yii di xew na woyof toy yi ci noonu te xam ne dëkk ak sëñ Tuubaa jar lu ëpp loolu taw feexan suñu boobam defal waaye defalul yàlla lu tax lu tax mu boole la sëriñ bi kenn ci nun ko defal suñu boobam lu tax mu tànn la boole la sëriñ Tuubaa amut tawfeex suñu boobam jum nu defal rek la kon nan ko xam te sant yàlla te luñ mën a gis ñu xam ne sëñ bi moom fa tax a jum muy ëllëg di aljana fàggul na ko waa këram te dara mënu ko fa fànq fii nag moom daana waxal boppam ne du dëkk ay tool la tool nag ku fa nekk faaw da nga mën nga ab xiif mën na laa fekk ca tool la mar mën na laa fekk waaye bis boo ñibbee ci kër ga tàggoog yooyu kër gën a moo ëllëg te fàggu na ko kon coono yi na ko nit ñi xam ne lu woyof toy yu la ndax moom ci boppam kat ba mu fiy dëkk boobu dëkk bi juróom-ñaar yi mu fi am am ndoxum naan sax boobu dafay teewoon moom ci boppam lu ne na ko ci dëkk bi kon bu ñu yàlla defalee tawfeex nun ñu dëkkee dëkk bi dëkk fi nii nu fi dëkkee kon war noo sant yàlla sant sëñ Tuubaa kon sëriñ bi mi ngi leen di masawu te di leen delloowaat ci sëriñ bi di sant it kilifa yi mu àndal di xam lay ni itam sëriñ bi it itteem ak taxawaayam tax na Cheikh Mamadou Bachir wax na ne fas na yéene lenn ci kër Serigne Touba yi nga xamante ne nii yàlla dogal na dëkkee sagu ko ñu def ay dëkkuwaay yoo xam ne dañ fa yóbbu nit ñi nga xam ne mënatuñu nekk seen biir kër loolu ba sëñ bi jox na ko ci ndigal Cheikh Mamadou Bachir fas na ci yéene taxaw ak ñi mu ko àndal sëñ Mamadou Bachir mi ngi sant kilifa yi mu àndal sëñ Moustapha sëñ Abdou Lakaram sëñ Mamadou Bachir mi ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi ak itte ji ak kàddu yu rafet yi nga xam ne yëkkati nga ko ci barab yi ñu jaar yëpp ndax yow ku la xam xam ne doo dox ci ay caaxaan te it ku la xam xam sa diggante ak Cheikh Mamadou Moustapha waaye ku la xam xam ni nga jàpp Cheikh Mamadou Bassirou mi muy lu muy lu wéew ci yaw te it yow ku la xam-xam ne doo wax lu nekkut ci yow doo wane lu nekkut ci yow ndax suñu suñ suñ suñ Tuubaa mi teeral la teeral na la suñu affaire di sa maam sëñ Abdoulaye Karam di sa wéju nga nga nekkal ko fi kon loola rek doy na sëkk ci ab cër kon am nga ab cër te xam nga sab cër te sàmm nga sab cër itam kon lii taxawaay bi nga ci taxaw ànd ak nangoo ànd Cheikh Mamadou Bassir ànd ak moom sëñ Touba rek tax sëñ Mountakha rek tax Cheikh Mamadou Bassir nee na xam na loolu te na ko mi ngi lay sant bu baax te taxawaay bi njëkkut tey fu mu a taxaw rek ci liggéey bi ànd nga ak moom ba mu tàmbalee ca Cheikh Mamadou Lamine Bara ba nëgëni te loolu nun ñi mën nañ ci seere fu a taxaw ci liggéey bi ànd nga ko moom loolu gis na ko te mi ngi lay sant bu baax a baax di ñaan suñu borom mu yàggal la fi te may la ak wér ndam li sëñ Touba di di ndamal ay ñooñam bu la ci kenn ëppale ginnaaw loolu suñu Abdou Lahad Ka yooyu itam sëñ Bassirou mi ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi ci ndigal yi nga xam ne ak jox na lañ ko ci dëkk bi ngay jege askan wi ni mu ko waxee sànq di xam seen i tawat ndax loolu moo tax sëriñ bi teg la fi yow itam sëñ bi nee na ngi lay sant gis na ni nga ci taxawee gis na itam jéego yi nga ciy dox mi la ciy soññ it bu baax baax ni mu ko waxee woon fee loo ci def rek doyut ndax loolu moo tax ñu tegla fi yaa ngi ciy góorgóorlu lu baax tam nag sa kem kattan kon sëriñ bi mi ngi la ciy sant bu baax di la ci gërëm di wax ne liggéey bi dafa yombut ndax nekk ci kanam mbooloo dafa yombut dox diggante sëriñ bi ak mbooloo mi dafa yombut ku ko dox ku ko def ku ne faaw da nga jàkkante ay coono yu bari waaye nag la koy mottali mooy nangoo muñ te nangoo doon suuf mel na suuf si rek nangu ñëpp joggi sa kaw jàll kon sëñ bi mi gis na liggéey bi mu ngi lay sant bu baax di delluwaat di sant di mastawuwaat askan wi nga xam ne ñoo dëkk ci barab bii ñu taxaw te basee bii ndox mi bi ñëwee ba fees dugg seeni kër ñu bari génn seen i kër mootuñ faa nekk sëriñ bi ne ak barab yi njaar yëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen ci mastaw bu baax ci tuur Cheikh Mouhamadoul Mountakha te di ko ànd ak yéen te di leen xamal ne liñ ko waxee léegi rek lu ngeen fi mën a gis ci coono rek noo fa ëllëg ba dana ko wecc insha allah taala bu boobaa danañ fàtteloo noo falaaw tey dëkk ak sëñ Tuubaa daal ku ko yàlla too feexale wowatoo a boole njàmbat kon nun sant rek lan war a def kon Cheikh Mouhamadoul Bachir mi ngi sant ñëpp di ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla na nu sëñ bi dimbali defal nu tawfeex ba ni mu bëggee nu dëkkee ko ci dëkk bi ñu nekk ko fi ba doon faatoo dem àjjana ndax dëkk bi kat daana wax ne adduna sépp dana dem masa dem ba tàkk ba doon genn daay kenn du mucc ku kenn du mën a mucc ci loola lu ku ku nekk sama pàkk ba di Touba adduna sépp dana masa dem ba tàkk fépp tàkk doon ak daay Touba doo ngay des mel ni ab dëkk su boobaa moom doo ngay des mel ni ab dëkk te loolu waxtu ak agsi nañ ci daana wax itam de diggante fi ñu fiy dekkee ak fi ñu taxawale bis pénc ay mètres yu néew la la la diggante euh, jumaa ji bébam googu mu nekk ak fi ñuy taxawal bis pénc daana wax ne mètres yu gàtt lañ koy dox kon ajjana ku ne Tuubaa daal jàpp ne yaa ngi aljana rek ci gàttal loolu moom sëñ bi fàggu na ko ba noppi kon ku fi dëkk ko ne loo mën a gis rek santal te muñ te ñaan yàlla mu dimbal yi ci des nag sëñ bi waxal na ko boppam ay ay ay ay solution ngi am yoo xam ne jàpp nañ ne léegi lépp tey dana dana dana dana dana saafaraw kon a ngeen jëf ñu ngi sant bu baax di jégalu ci guddal gi